radio talibé radio talibé carrefour L'application. L'application Radio Talibé disponible sur Play Store. Jaafar sama borom ne Jibril

wala an yat foo am na la yat foo noora laayi yàpp fay bii wa yàppa ilaa ñu tuma laa moro yàlla ne gis naa leen ku ne nga ubbi làmmiñam di rëy gémmiñ di jéem a suul leeruk Muhammad ki ba ko jox waaye ma wax ne wa yàppaa bañ naa laaw ba yàlla du sotti ilaa ñu tuma moro foog mu àgg fi ma ko bëgg mu àgg ma wax ne dafa ñetti weer yu toppante bii ci la bokk weer bi dee nu mu tudd rajab bii nu mu tudd shaaban bu ci topp ramadan boo demee ci nu satu majalis Pape Diop xam ne li may wax indi na lu bari xadis nabawi mu wax ne yonente bi ne ñetti weer yii diggante tisbaar ak takkusaan كوكي واخ لي ماي بغا واخ يالا يبال ملائكه يور سو دوسي لي اندي لين مو دوسي اك با غور باي ني اودي دوسي بو لاكالين خم نغا لاك بوكو لاك فار بو نيو فار من ني بيندا لنين واي بو نيو لاك بو في اموتو دوسي هاو ما جانا واخ دي فيه در ولا نفن ولا حياة ولا نصر ولا موت مصطفى لكم لو غم لو امول مو غن ويدي لو ام غم لو امول مو غن ويدي لو ام xaw ma dégg ngeen mag de gëm lu amul moo gën weddi lu am weddi lu am baaxul weddi lu am baaxul gëm lu amul nag man nga ci am sens parce que man ngaa dem ba xam ne am na ma jox benn exemple jógal sa kër jëm jàkk jàkk yaa nga tooba dajeeg shérif أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك gëm loolu amul ko def ah bépp luñ la wax luñ la wax ñu ne yonent bee ko wax nga bokk te day diingal hadiis te la mu wax def ko du la wàññi dara te def ko mën nga ci ñàkk def ko du la dina la wàññi te def ko mën nga ci am njëriñ def ko rek bul weddi bul toxal defal rek. xam nga bi Alaaji bu Saaxo commencé sartas bi jànge ko dama ay ustaas jóg di weddi hadis ne hadis bi daal dafa daif ñi naan hadis bi duga di fi génne fi mu woo ma ñu ma ñii dañu dof xam nga lu may woote mu naa mu ne ma naafila dafa arab ma ne de togg ñoom jox nii dafa arab ma ne de ma ne loolu laa fay lu mu fële ne amul leneen day am kaay leen ko julli bu ngeen paree añ naa ndox te ñibbi fu ci bàkkaraame foofu lii fay noor si daa ji Maalik bu ne sang bu tedd bii yàgg na caa nag xam nga Abdou Aziz nit na wattuy bokkam ay bokkam ñoo ko xam nit na wattu ay bokkam buñ la fexeeree du mooy dañ la xam gisuloo ba la ba yoree si capp xam nga capp bokkul ak njuum capp mooy weñ bi ñuy roof ci semmiñ bi kooku mooy capp bu fekkee rocc ko ko bant bi njuum lay tudd boo leen boo leen ñoom ñaar muy semmiñ weñu kese gi mu ngi tudd pacc bant bi kese tuddoon njuum boo fa bee weñ ñu ne roof ci bante bi mu tuddee semmi law be nag dafa jël weñu kese songu sumba bëgg koo gor bu daanu sumba nekk di ngay yëpp du sotti mënuloo ko yàgg ko ci rek di nga fi yàgg te doo mën a dara xam nga lu law def samp mu taaj nekk wax nga dëgg lee maa bés ndax sama mbokk du ko nekk ndax njuur ci suñu pël jóge mu ne ko sama mbokk dugg na ci collègue yi baax ko suuf sama mbokk dugg ci lee baax ko fexe ba ñu bokk say mbokk nag am na lu muy jariñ moo gën bareen bi mooy ñàkk jubóog say bokk koo jubóol te jubóog say bokk la nga def bi jubóog ñooña ko defee jubóog say bokk mooy di jëllale day jéggale day feneltal te tane ne te dimbali ñi nga tane amul lu gën a garaaw tane say bokk di la seetaan man man kenn du wàllu ndombuk tànk du ko joxe xam-xam du ko joxe yàllaay tànn nag nga neex ci jaay mu jox walaw basata laahu rizqa li kon la luy xew la baaw loolu ñu la jox nag pour yàgg say bokk fu ko ëppale kenn yàgg say bokk la séddaateel ndax mu jigi tele nga toog mag ñi amuñu woon xam-xam waaye daa nañu wax sa ñamu bët amul woon am bët pour le yor lewet si laa ji Maalik ni hum demir jooju bokkul kum de demiru hum bokkul ak kum yàlla si wax dëgg yéefar day mel ni ku leen hum mooy ñoom xum mooy yéen xum mooy ñoom xum mooy yéen suy waxanteeg julli daf koy wan kanam suy waxanteeg yéefar jox ko gannaaw in kuntum taalamuuna fa innahum yaalamuuna kama taalamuuna te wa tarjuuna mimman laa ya'lamuun man lii bàyyi leen اللي تف بارك الله امين آه، سيدي بكر ني مباح السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نامي نعم، ني جيجن ني tàmbalee nuyoo bi nag ci imaamu imaam Babacar Diagne nuyoo bu baax Chérif Touraat nuyu njabootu cheikh al islam gii nga ni ñoo ngi fi nekk fii radiyallahu taala anhu sang bi géy teg ko ci loxol nabi géy mii ak nag njaboot gi yépp di njabootu Cheikh Abdullahi Cissé ca Ndar ñoom tam ñoom ñëpp ñu ngi fii toog di nuyu maire bi di leen ziyaara nag ñoom ñépp di nuyu nag mag ñi te xam ni ñoom ñooy kilifa ci dëkk bii ngoog ñoom ñooy kilifay jotaay bi di nuyu alxaaji tafsir saaxo di nuyu nag ñi teew ñépp di nuyu sunu doom ji doon wax di Mor Seck ko gërëm nag ci taxawaayam ne moom ñoo ko jur ci lu wér wér nag muy nag diggante bu sore te yàgg lool ne moom nag taxaw na taxawaayu baayam yàlla na ko yàlla saxal nuyu alxaaji yusufa Jóob ñett yi nga xam ni moom lañu lim ñi ku génn àddina ku war nga koo bàyyi sa gannaaw bokk na ci bii jataay ñu dajaloo fi ngir yàlla ak mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi doon dund te ñu jamonoonte woon ak Seydi El Hadji Malick ngir yàlla nag bokk ak moom tariqa Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiyallahu taala anhu saxal ko fii nag ba mu sax ñoom ñooñee yàlla jële leen fi waaye nag wàcc fi njaboot goo xam ne njaboot googee bàyyi na leen xel ba ñoom ñu topp jeexitu mag ñooñee di leen ñaanal jataay bii kat Sidi Bakar ne mag ñooñee ñoo ko moom ñom la yalla baxal defar sen kanam defar it sen gannaaw yalla nañu yalla taas ci sen barke ñi ngi nuyu nak soxna yi Seydou bakkar ne yeen ñepp ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñoom soxna Fatal moom daal képp koo xam ne soxna nga te toog ci jataay bii bàyyiwunu kenn ñu ngi nuyu ñépp ne wax ji nag xaw ma nu muy toll waaye daal bu njëkk bi tafsir saako junñ na leen ko moo di bu ngeen amee bés ngir yàlla dee leen génn ca la ngeen am di ko jox ñiy way di tag di yëpp ci yàlla Muhammad ak ñi nga xam ni ñoom ñoo leen di waxtaanal ba tuyaa ba juddu ca fekki seen maam ca barsax nee nag mu di façon nag boo xam ni nag sant yàlla la tafsir tey waxtaanam wax na nag ak yéen ngeen ni këcc toog rek nee saraxe moom la leen wax saraxe leen ñu tuuti nag ñooy jóg ne saraxe ci lu tuuti ca la ñu mën a am mu mel na nag li nga xam ni moom lañuy def ci yàlla lañuy ñuy dese di ko dencal seen bopp moo leen gënal waaye nag def ci yàlla moo gën yàlla wax na ba tey joxeel ma joxaat la yàlla wax ni li ngay joxe kat yow jaam bi lebal ma ko ma fay la fukkam yàlla wax na ni fóot leen ci seen xol ci li ngeen di joxe loolu mooy genn wàllu waxtaan bi bi ci def waa Wakaam ñoo ko moom mbooloo mi daan na ëpp lii nee dañ daan yendu kër Mame Mbaye Diop tisbaar ñu tas wakkaan dajaloo ci biiru bopp kenn ku ci ne sa maam nekkoon fi bàyyi yi toog seen place ñu dundal dëkk bi ñu ni fi nekkoon ci mag bàyyi fi njaboot njaboot googu nañu ànd nekk benn dundal bés bi ci seen ñoom su ko defee bu la neexee ngeen def njiit li maam bay jóg bu leen neexee it ngeen tudd ñëpp ndax ci seen barke ak ñaan gu nangu ci la lii amee neekat te lii ñun ñëpp mën nañ cee defaru fa tabaarakallahu ne maire wax ma ko léegi ne sababu dikk wakkaam ci Cheikh Sidi Hadji Malick ngi ko jaarale ci Mame Mbaye Diop seede bi mooy këram bu Cheikh Sidi Hadji Malick mi ngi ci biir këram ilimaan ca jàkk ja bu ne allahu akbar ñépp topp ko waaye ñoo bokk ñun la ñuy def ak la ilimaan di def ñoo ko bokk ilimaan kat mënul jël ca la muy def dara jël ko yóbbu moom wala mu ni bu ci kenn julli ndax julli gi sama julli la ilibaan moomu ko kon daje bii benn nit rek mënu koo moom nañu leen ko sellal yaatal ko te defar ci sunu bokk kenn ku ne nag gis ci sa bopp ne waaye kat ñu koy bamtuwaat de si ñu bakkat ne mbooloo mi daal daan na ëpp lii ba ñu ko defee kër maam bay jóg xajatu fa woon ñu dem ca jumaa ji xajatu fa ñu ñëw ci école bi dafa daan fees moom école bi ba ci bunt bi tey jii nit ñi xaw a wàññiku ñu xaw ci nag am jaaxle waaye nag xalaat nag xalaat bi it nag moo di yéen waa Wakaam li xew ci diine li xew ci tariqa bi li xew ci bokk gi kenn du leen ci gis da ngeen dul dem xew moo tax bu ngeen wootee kenn du leen wuy si ngant li ngeen di am moom la ñeneen am fii rek boo seetee nit ñi mën nañu joxe misaal ci maam daba bii toog waaye nag du mat lay ndax Abdou Karim Abdou Karim moo ko fi indi waaye waa Wakam daal du ngeen dem benn xew toog wakkaam rek su ngeen xewlee nag ñépp ñëw su keneen xewlee kenn ku ne am ngan àddina daal ñépp am ngan ñun ñii fi teew am nañu ngan waaw ñun ñii fi teew fan lañu fanaan lañ la yendoo te kat fii mu ne jóge wuñu suñu kër de dañoo jóge fa nu jóge rek jiit la àndandoo dal di ñëw fii buñ fi jógee nag dal di tëri waaye daal dañ di tudd tuuti ñu ci def ñu bàyyi leen ak seen boroom yàlla gis leen reconnaître leen ni ba ñu may tudd ñanoo te maa toxoon su boobaa yàlla fayal leen boppam te kat ku ci bokkul romb di seetaan lu yàlla fay mbooloo mi ko ca moom moomee kon daal jar nay fekke lii ci biir mbooloo yi ci la ñuy dajee ba daje ca ak waayu yàlla te doo xam kii ni waayu yàlla la te kook kat kenn du ko xam ci mbooloo waaye bu teewee rek lu mbooloo bi ñaan yàlla na ngir kookee waaw kan la ci nag xamuñu ko nañ leen ko wut nag nañ leen ko wuti ci mbooloo yi ne ne daal Seydou Bakar ne bu fi dara xewatee yëpp yéen góor yi wakkaam dee leen saraxe ne da di denc rek ëllëg nag day fekk nga am benn cër ci ëllëg ëllëg yàlla rek moo ko kenn bokk ci kon nag gaawantul loo mën a def ci lu baax nga gaawantu def ko déedéet lu doy amul waaye ku doy lu nag mbokk yi daal Seydou Bakar ne dafa mel na rek dafa mel na waxtaan wi daal da koo dencaloon ne waaye nag mi ngi seede ne yéen ñii ak moom mii benn ngeen rek ngeen ne xam ngeen ni ñun ak yéen benn lanu ne li la koy xamal rek moo di bu ñu dajee ñun ñii ci lu dul xew ni nga xam ne noonu la ñuy jëflante moo lay won ni ñun ñii ñépp benn lanu ne diggante wakkaan kii angor ngor ak yoof lu mu gàtt gàtt gàtt cër bi ñooñee am ci kër Cheikh Seydi El malik Malick ak ñoom cër bi Seydi El Hadji Malick am ci yéen ñii ak tarif bi nga xam cër bi nga xam ni yéen am ngeen ko ci tariqa bi fa tabaraka def nag benn effort bi <coughs> lu waaye dee leen sarxe sarxe dee leen sarxe waykat yii ña jóge ca fu ñuy wax ngir ba teer si fii ñenn ñi ña nga jógee Kaolack ca kër góor gi alaaj Daawuda Mbaay jóg ñii jóge Banjul ñëw fii ñeneen ñaa ngi jóge feneen ñoom ñii ñi ngi kër ñi ngi njaboot di keppatu lu ñu joxi seen jabar ndax ñoom yabuñu seen jabar de surtout nag daaw góor mii di wax ici fii mu ne daw góor bu yóbbuwul lu sakkat te eh, du fanaan da da koy rey yàlla ñu da koy rey moom ak Abdou Aziz mais toog na kon nag ñoom nag way nañu ba xottiku lii ñu mujj a way rek ne ku la ko waxal war nga ko jox dara ilahiya ilahiya ilahi ilahi tawbatan qablal manhuni yàlla sunu daje bii kat li ñu sol rafet na li ñu dépensé bari na waaye nag waajal nañu ko waaye nag indi waale nañu ay bàkkaar ne Cheikh Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu ñun ñëpp wóolu nañu ko wala boog yaakaar nañu ko ne yaakaar Cheikh Seydi Hadji Malick nag du yaakaar jëmmam de yaakaar la jaare la nag sa yaakaar ci Cheikh Seydi Hadji Malick su ko defee ilaahi bii rek mu toog daal wax ak boromam moom Seydi Hadji ne cheikh sidi hajj malik bu togon fi kenn du ko wax talal ma ñaanal la da nga nan rek gor gi ñaanal te nonu nak lañu ko wara ñaanale way lepp luy bëgg ñaan yalla jitu na la ci wax naa ak yalla ba wax ja daana mu ne yàlla ëppal naa li ma wax ëpp na waruma ko woon wax waaye nag di tax ma wax ko ragal a ci géeju bàkkaar moo tax ma wax ko xaatabtu rabbi xitaaban laa yaliqu bina nii ma waxe ak yàlla du yar du tekkin waruma ko woon waxe waaye kon daal yàlla maa ngi dellu si waat di jéggalu faghfir li abdin min al ahdaami xayyaari ay bàkkaar rek ñoo ko mu tiit wax ak yow nii Cheikh Seydi Hadji Malick du yàlla Cheikh Ahmed Tidiane du yàlla ñëpp ay jaami yàlla lañu yàlla ni leen ku ci bëgg baax royal ci sayyiduna Muhammad mooy ki baax ba noppi symboliser mbaax nag sama yërmande ku ne xaj ci kon yàlla daal moom rek mooy yàlla moo tax Cheikh Seydi Hadji Malick ni ko yàlla nii nga mel ci yërmande ak mbaax soo ko melul woon kenn du fëgg sa bunt waaye ku la ëpp bàkkaar nga xam ni rawu waayam mooy dem taxaw ci buntu néegu yàlla di wax ba yàlla jéggal ko ne foofa rek la mën a rale alhamdulillahi rabbil alamin Sidi Bakar ne lii yàlla na sax wala na yàlla na barkeel yàlla na ko yàlla ndaw yàlla na taas ñu ci barke mag ñi mag ñee liggéeyal yàlla ba mu baax mais wax na ko léegi nee ci mag ñi ci réew mi ak jëf yu baax yi ñu fi def bu yàggul rek xam ngeen ni réew mi tiitoon nañu defe ne rek réew mi dana tàkk benn yoon coow li nag bare lool kenn ku nekk nag dellu ca yàlla ab noo mel jël nga sa bopp delloo ko ca yàlla ñépp di ñaan lañ doon xalaat dund ko sax gisugu ko yàlla indi jàmm ñu woote dimanche xëy xëy xëy altine liggéey fanaanewul hôpital kenn fanaanewul ca kaso ba kenn xëyul ñu bànn sa bopp benn kërit tàkkul benn oto lakkul yàlla rek moo ko te yàlla nag ànd booloo waa Wakaam nañu fexe ba xamanteeg waa Ngor waa ngorit fexe ba xamanteeg waa yoof waa yoof xa fexe ba xamanteeg waa mbaaw waa mbaaw fexe ba xamanteeg waa Tiwaawan ñu topp ko nag muy benn chaîne rek dañ koy jariñoo rek ndax yàlla nee na maa leen ci gox yoo xam ni bokkunu ne lu ñu fi yaakaar nag yàlla nañu ko am lu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu ne lu ñu tëj nag ci xol yi ca waxunu ko te dara ki nga xam ni dara ump ko muy sunu borom yàlla nañu yàlla fekk ci mébét yooyee defal ñu ca lañ ca bëgg ca mu ànd ak jàmm رومي يلا في يلا نولي بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا نك يلا بولا دفا ني يلا نيو وير ني يلا نيو ام نيام يلا نيو لا ام يلا نا بركه le 27 le papa Malick dana fi ñëw bu ñëwee mooy Cheikh Seydi Hadji Malick ci tur ak deret nee ngeen xam ne rek am ngeen gan. ngeen génn nag yéen ñépp teeru ko teeral ko wàcce ko it wàccuwaaye yàlla na ko yàlla def yàlla na yàlla barkeel seen liggéey yàlla barkeel seen liggéey amin te yàlla um leen ba ñu bàyyi montage di photo nit ñi jël son jël image commenté teg na mu la neexe nag bàyyi leen lool dafay yàq liggéey ne takat lii ngeen di def yéen lu am solo la kenn ñemeetu la wax ndax li ngeen di waxal nit ñi dafa bari te kat li ci am lu néew la wax nag waxal ko gor wax jëm wër àddina dootoo ko mën a dab bu la àqam boo moytuwul doo màggatal ay bëñ ay bët bay photo yal nañu yàlla sàmm amin ñu tàllal loxo yi jàng fatiha salaat al fatiha amin fooy toll amin ñu ngi nuyu Xaaji Umar Gueye bu ba Seydou Bakar ne ñu ngi nuyu El Hadj Umar. amiin yaa rabbal aalamiin ndànk. macha allah alhamdulilah rabbil alamin looloo nekkoon seen journée de prière bi nga xam ni famille Baye Alhaji Mbaye Diop muqaddam Cheikh El Hadji malik Sy radiallahu taala anhu famem ñoo doon def journée de prière defone que sous la présence de Serigne Babacar Sy Mansour al Khalifa nga xamni ne macha allah dégg nañu al Tafsir Sakho moko don doon waxtaan mu Baye Alhaji Ibou Sakho nga xamni aussi euh sunu bay Abdul Aziz Mbaye moko don doon way macha allah gis nañu noonu journée gi ni mu demee nga xamni ne nañu bay al Hadji Tafsir waxtan bu am solo gi nga xamni tamit. sunu xalifa di sëriñ Babacar Sy Mansour def synthèse gu am solo googu lii nag mooy Talibé TV Talibé TV sa dëgg-dëgg mooy carrefour diine gi gàmmu ziyaara màggal bàyyiwunu dara lépp li nga xam ne day jëmal diine kanam te koy dëgëral incha allah danañ ko taxaw te it ma leen di wax ni ngeen dem abonné Talibé TV suñu chaîne YouTube. bu ngeen demee abonné bis bu ngeen abonné incha allah lépp lu nu dugal di ngeen ci teg seen bët bu neexee yàlla kon Talibé TV sa dëgg-dëgg mooy carrefour diine radio talibé radio talibé Carrefour Tidéji L'application Radio Talibé disponible sur Play Store.